ñu ngi leen di a nuyu di sànni asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di seet euh, seetaan chaîne ID TV tey ñu war a dikk ak yéen si suñu ñetteelu leçon ci li nga xamante ne moom moo di téere bi ñuy jàngale di al arbauna nawawiya an abdillahi an abi abdirrahmani abdillahi ibni umar ibn alxataab anhuma qaala jële nañ ci abi abdirrahman عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يعني في الجرم ممك فقام قال نينا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دقنا تيرنت صلى الله عليه وسلم مي وحن بني الإسلام على خمس الإسلام تبخين انكو تجرومي فانكو تجرومي تيه شهادة أن لا إله إلا الله bisi ci njëkk mooy ñu seede amul benn buur bu wara war a jaamu jaamu bu tegul ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala wa anna muhammadan rasulullahi ñu gëm ne muhammad ndawal yàlla la yàllaa ko yónni wa iqaami salati ñuy taxawal julli wa itaa zakaati ñuy joxe azaka wa sawmi ramadana wala wa xajjil bayti ñuy aji wa sawmi ramadana ni wor li nga xamne ne moom yeru ya kor <clears throat> hadith babu al imam al Bukhari buxaari ak muslim ñom ñaar ñoko solo hadith bi da ñew di leral li nga xamantene mom modi ponk yi nga xamantene moy ponk l'islam yi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa leral ci hadith bi ne jurom la ponk suñ ko waxe rek moy mbir mo xamantene dar dara ta taxaw lu dul ne ponk boobu daf fay nekk ba pare rawatina mu nekk loo xamante ne yonent bi daf ko tënk ci juróom nga xamante ne ala xamsin mu nekk juróomi piye yoo xamante ne mooy piye yi lislaam mooy piye yi nga xamante ne mooy yi téye lislaam nga xam ne lislaam du mën a nekk lu sax lu wér mukk ponk yi ni nekkul koo xam ne daf koy dundal bi ci yooyu muy ashahadataani muy seede ñaari baatu seede yi ñaari baatu seede suñ ko waxee mooy nit ki seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu jaamu bu teg ci dëgg ku dul yàlla subhaanahu wa taala ñaareel bi mooy nit ki seede ne muhammadin alayhi salaatu wasalaam yàllaa ko yónnee ñaari baat yooyu wala baatu shahadat an la ilaha illa allah loolu jullit bi def ko war a gëm ndaxte mooy baat bi nga xam ne moo tax yàlla séparé jullit ñi julit moo tax yàlla subhaanahu wa taala ber kër kër gi nga xam ne mooy këru xéewal jagleel ko jullit ñi kadalika ber kër gi nga xamante ne mooy këru mbugal boole beral ko ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñooy weddi kàddu googu shahadat an la ilaha illallah kàddu googu baat bu màgg la boo xam ne nit ki sax su dugg ci lislaam baat boobu koy dugal ñu boole ci shahadat anna muhammadan rasulullah nga xam ne ñaari baat yooyu ñaari baat yo taqoo lañu yoo xam ne benn mënta dem bàyyi bi ci des benn mënta dem bàyyi moroomam bu ñu waxee shahaada an laa ilaha illa allah liñ ci nanaam moom mooy an laa yubada illa allahu mooy duñu jaamu kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala loolu yàlla feddali na loolu ci ay aaya yu baree baree bare bare bare ko boppam malaayika yi seede ko boroom xam-xam yi it yi nga xamante ne ñu maandu lañu نيمت ني سيدنا امول بن بور بو خامني وريس نكو جامو سي دغ كودول يالا يالا واخ القران شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط يالا نانا سيدنا سيدي غو خامتنا يالا كو سيدل بوبم موي سيدي غو تيغو سي دغ نامول بن بور بو نوري جامو سي دغ كودول يالا ملائكه سيدنا نكو boroom xam-xam yi nga xamante ne dañoo maandu ci seen xam-xam it ñoom it ñu seede li nga xamante ne moom moo di baat boobu moo tax baat boobu yonent bi alayhi salaam utal ko ay charte yu bari ci ne képp ku wax baatu laa ilaha illallah mu nekk lu sell sa xol da ngay dugg aljana ku wax baatu laa ilaha illallah mu dëgg ci sa xol da dugg aljana ku wax baatu laa ilaha illallah nga am ci yaqin nga nga xam ne mooy certitude kadaalika da ngay dugg aljana mu nekk juróom ñaari charte yoo xamante ne soo alxaafid alxakami ci sulamul wusulam bu am solo boobu mu ngi ko fay way wa bi saba wa bi shurutin sabatin qad quyidat wa fi ulumi waxi xaqan waradat ilmun wa yaqinun wa ixlaasun wa sidqu wa mahabati wal inqiyaadu wal qabulu laha ba afiyaati jeex mooy dëggu am yaqin selal nangu baat bi bañ a sikki sàkk ci li nga xamante ne moom moo bi baat bi nga nangul ko لوليه ده بوكة شاكي حمد la لا إله إلا الله لا كذلك ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنا كيف كو حمنا بعد nga mujjé wax ba ngay faatu moy la ilaha illallah yalla dina la dugal li nga xamantene mom modi aljana ñaarelu xaj yi ci sédé bobu moy sédé bi niki sédé ne muhammad yonante bi alayhi salatu wasalam yalla ko yeen te ñaar yoy moy ci cios ciosaanu diine moy duñu jaamu kudul yalla te li ñuy jaamu yalla it yonante bi sallallahu alayhi sallam mo koy jangale kon jëf yàlla subhanahu wa taala du ko nangu mukk lulul ne fala budda min tajridil ikhlas lillahi wa huwa li ngay def yàlla dong na tax nga koy def loolu ma shahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah loolu mooy ñaaral xaaj bi mooy tajridul mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam moy li ngay def jam yàlla li ngay def nang ko jàng jëfé comme niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don jëfé am ñaareelu ponk bi yonante bi salaam lay ko moom mooy julli te julli moom mooy pay bi nga xamante ne mooy pay bi te diine comme ni mu ñëwee ci xadisu Muaz ibnu Jabal radiallahu anhu julli mooy ñaareelu ponk bi gën a màgg ginnaaw baatu ñaari baatu seede yi bu bu jàllee yonante bi salaam wax ci ay xadis bari soññe ci ñu bari bare bare bari ci ngëneel yi nekk ci julli moo tax Abdullah ibn Shaqiq nekkoon benn taabiin daan na wax ne saxaaba yi yonente bi saa sallam xamuñu benn jëf boo xam ne nit ki su ko bàyyi day génn ci lislaam lu julli yonente bi xadis bari day wax ne al ahdu alladi baynana wa baynahum tarku salaa fa man tarakaha faqad kafar lii dox suñu diggante ñu nag ñiy weddi yàlla mooy julli ku ko bàyyi génn nga ci lislaam moo tax julli boobu ñu koy def juróomi yoon ci bis bi gannaaw ba mu nekk woon juróom fukki julli يالا نبي صلى الله عليه حديث يالا وحش حديث القدس ان امضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمسون في الاجر وخمسون في الفعل موي من داي سامي واخ دوماكو سانجي كي جولي جورومي جولي من يالا دينا كو فاي جوروم فوكي جولي موي 50 جولي دا خامني باني يونال جولي جولي دا فا نيكون ليغا خامتاني مام مودي جوروم فوكي جولي julli googu nag képp ku ko bàyyi amoo benn cër boo am ci lislaam comme ni ko imam malik rahimahullah di waxee kon julli boobu dees ko war a taxawal ci joxe ko ci ay waxtoom ci joxe ko ci melokaan bi gën a sell ci joxe ko ci ni nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala noonu la ko bëggee ngir ne julli moom mooy li yàlla di njëkk rek la ëllëg ci jëfi jaam bi ñaareel bi mooy julli mooy li yonente bi salaa sallam mujjee xeetam kazalika bokkaat na it ci li mu mujjee bàyyiloo xelam xeetam nee na li njëkk ñàkk ci xeetam mooy toroxlu ci biir julli kon julli boobu yàlla dafa subhaanahu wa taala dafa bëgg koy def jullit bi warta am benn ngànt ci bàyyi ko su ko bàyyee te def ko rek jamono jooju mu ngi toggoo li nga xamante ne moom moo di ay bàkkaar rawatina yi nga xamante ne ay julli yu war la beneen bi mooy joxe azaka <coughs> azaka jaamu yàlla la goo xamante ne jaamu yàllay alal la nga xamante ne njëriñ lii dafa day day day part day day dépassé ki koy joxe mooy yow da ngay joxe rek mais alal ji da nga koy da nga koy séddale ñeneen nga xamante ne dafa bokk ci ibadat yi nga xamante ne jaamu yàlla yi nga xam ne dañuy lay wax ne jaamu yàlla yoo xam ne la day jóge njëriñ li day jóge ci yow ba pare mën a saawaan baawaan ci ñi nga xamante ne ñoo di jullit ñi yàlla daganal ko ci ñi nga xamante ne ñoo ñu ñàkk ñu koy jox ñi nga xamante ne ñoo ñu ñàkkul yàlla daal di ci tudd juróom ñett ci ñi nga xamante ne ñoom lañ ko war a jox comme ni mu ñëwee ci ayatu suratu tawba innama sadaqatu lil fuqaraai wal masakin ba aaya jeex loolu euh, bañ ko détaillé moom mooy gën ngir bañ dugg ci li nga xamante ne moom moo dar sa fiq mais ala kulli xaal azaka boobu nit ki su amee loo xam ne som boo xam ne toll na ci lu mën a génne azaka loo xam ne mët na daaw ba ren kadalika nit ki mu daal di ci génne li nga xamante ne moom moo di azaka beneen bi nga xam ne mooy bi ci topp mooy soomu ramadana woor weeru koor nga xam ne boobu it wala xajjil bayt mooy aji màkka loolu dafa am ñaari yoo xamante ne dañuy ñëw jiital li nga xamante ne moo di xajjul bayt yenn riwaaya yi kadalika ñëw di jiital soomu ramadana xajju baytillahi alxaram loolu jaamu yàlla la boo xam ne jaamu yàllay alal la mais jaamu yàllay yaram la dafa boole ñaar sa alal da nga koy génne mais it sa yaram it day participer waale ci jaamu yàlla boobu nga xamne lolu ben yon lañ koy def ci li nga xamne moy aj ci at bi yalla subhanahu wa taala faratal ko ci julit bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ay ngeenel ne man hajja hada al bayta kep ko dem aji makka falam yarfus te waxul wax ju ñaaw walam yafsuq te jëfi fa jëfu kacior rajaa ka yaw ka yow mi waladathu ummuhu day set ci ay bakar comme bis bi ko di jure namu mu wul ben bakar kadaalika su ajee aj boo xamante ne defu ci li nga xamante ne moom moo di yooyu yàlla subhaanahu wa taala noonu la koy jéggaleel ay li nga xamante ne moom moo di ay bàkkaar yonente bi alayhi salaam waxaat ci xadisu muslim nee na alxajjul mabruuru laysa lahu jazaun illa aljanna nee na aj bu yàlla nangu day amul benn fay bu ci yàlla di xaar di ko fay julit bi ludul li nga xamante ne moom moo di aljana kon yow julit mi am alal di dem fu nekk suuf te yow nga am possibilité mën a dem aji ji demal nga aji ji te xam ne loolu jaamu yàlla bu màgg la boo xam ne def bi koy def yàlla subhaanahu wa taala def la ci effacer li nga xamante ne moom moo di say bakkaar dàqal la ci ñàkk comme yonent bi ni mu ko waxee ci ay xadis loolu bokk ci ponk yi juróomeel bi nga xam ne mooy mujj mujj ci xadis bi mooy sawmu ramadan mooy woor weeru koor te jaamu yàlla boobu it nekk jaamu yàlla boo xam ne jaamu yàlla yaram la mu nekk secret boo xam ne dafa dox ci diggante yàlla subhaanahu wa taala ak jaam bi ndaxte jaam bi kenn mënuta wax ne kii daa war ko dul yàlla subhaanahu wa taala yàlla loolu yàlla rek ko xam kii moom mu ki kii mën naa tëju biir néegam lekk naan génn ñëpp ne daa woor te fekk yàlla xam na ne moom moo woorul moo tax yàlla wax ci xadiisul qudusi ne assawmu lii wa ana ajzi bihi man yàlla maa koor man yàlla maa koy fayal sama bopp mooy loolu man rek rek ma xam jambi ni mu ko defé ndax nonu la wala déet man yalla man dong ma xam ndax jambi koor gi mu wor man yalla rek mata tax mu def ko wala kon lolu yeb julit bi daf ko wara baye xel ci li nga xamantene mom modi wor di koor yalla sant nañ ko ngir ñu wor ci at mu nek ben wer nga xamantene mo ngi tuddee shahr ramadan al mubarak wor biñ koy wor yonente bi dig ci ay tiyaba yu bari yo xamne dañ ci jël ragal yalla yalla faral ñu ci li nga xamantene mom modi suñu ay kon hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci la dajale li nga xamantene mom modi ponk l'islam bi nga xamantene mom modi jurum mu nek ponk yo xamantene bu nek suñ ci doon jël dañ ci jël lu bare bare ci ay ay njariñ nga xamne ne bi warta sagane ben ponk yi ben waru ci see sagane ngir ne yalla subhanahu wa taala ay santanem la nit ki it bañ a bena bàyyi ben ponk yi ben mo xam julli la nek waro xam ci ko ngir tayal wala yu mel noonu mais ala kulli xaal julli bi bañ a bàyyi julli bokk ci ñi koy taxawee te di ko taxawee defee ko ci jàkk ja ndaxte loolu moo ëpp tuyaaba kadaalika woor julli bi it def ko mu koy def xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko ko sant beneen bi mooy li nga xam ne moom moo di aj màkka ak joxe li nga xamante ne moom moo di kon bokk na ci ñi mën a ci xadis bi bayaanu ahamiyati hadihi al xams leeral bi ñuy leeral njëriñ li nga xamante ne nekk na ci ñeenti ponk yooyu nga xam ne lislaam ci la tabaxoo beneen bi mooy bi daa tàmbale ci ëpp solo jiital leen mujj yi nga xamante ne ñooy yi topp beneen bi mooy anna shahadatayni asaasun fi nafsihaan ne ñaari baatu seeday fondement la boo xamante ne day taxawal boppam kenn mënta nangu benn jëf te jëf ji fondement bi taxawul te moom mooy ñaari baatu seede yi ak li nga xamante ne moom moo di yeneen jëf yi juróomeel bi mooy jiital bi yonente bi saa sallam julli ci yeneen jëf yi nga xamante ne ay jëf la ñu ci di def ngir julli rapport ak bi nga xam ne moom la am diggante jaam bi ak li nga xamante ne moom moo di boroomam nga xamante ne jullit bi saa su nekk dina jàkkaarloog boroomam ci bis bi juróomi yoon loolu lu màgga màgga màgga la te ngeneel gu màgga mag la boo xamante ne yàlla subhaanahu wa taala defal na ko xeet bi nga xamante ne moom moo di xeetu lislaam kon ci tënk xadis boobu lañ ñëwoon doon leeral ci ñu bàyyi xel ci juróomi ponk yooyu nga xamante ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moom la jàngale ci xadis abdullah ibni omar boobu mu nekk xadis boo xamante ne xadis bu màgg la jurit yi it war a fexe ba lépp loo xamante ne ponk la bu ñuy wax ci lislaam mu sonn ci lu nekkul ponk it mu xam mu wér ci li nga xamante ne moom moo di lislaam moom it mu fexe sonn ci ci di ko def ngir yàlla subhaanahu wa taala ëllëg mën koo fay يجن جارشني نفعله اليوم من يالي يالن جالا دفل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين